Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est ay écrit cine TV je me Farba Faye, responsable aussi politique ici au sein de Fatik Alors, euh, c'est juste aussi pour revenir de la situation qui est un constat général, en tout cas par toute la population faticoise. Le mouvement Fatik Monunior est un mouvement qui est né depuis, qui a toujours participé pour le développement de cette localité. Le président l'a tantôt dit, on a formé tant de jeunes ici. Toutes sortes de manifestations, on l'a mené ici. Encadré, créer même des petites entreprises pour nos enfants, pour l'avenir de Fatih. Au-delà de ça, récemment, nous sommes au moment de l'inscription sur les listes électorales. J'espère qu'aujourd'hui, beaucoup de primo-votants qui sont au sein de Fatih aujourd'hui ont été mobilisés par ce mouvement. Le constat est là. Fatigue est le fief du président de la République du Sénégal. Nous ne sommes pas une milice dans l'arène politique, mais c'est juste pour alerter le président de la République. Nous sommes en face des élections présidentielles en 2024, qui, sa candidature est incontestable. Au-delà de ça, ses réalisations qu'il a eu à mener depuis sa législature au sein de ce Sénégal est claire et nette. Tout le monde est d'accord avec le président. Ce qui est incontestable, c'est dans son fief, là où le, président est né, là où il a foulé le premier sol. Cette population qu'il a toujours accompagnée dans tous les combats qu'il a menés dans ce pays-là, qui est laissée complètement en rade, marginalisée par ses responsables politiques qui ont créé un cercle dans cette ville depuis 2012, c'est le même cercle. Mais monsieur le Président, une équipe qui ne gagne pas, mais on la change. La preuve, au-delà des, réalisations des infrastructures, mais même le président a constaté qu'ils sont incapables aujourd'hui de mobiliser les Fatikois. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. L'État a fait ce qu'il avait à faire. Nous savons que nous avons une région qui regorge beaucoup de potentialités, mais qui a été enclavé. Les chantiers de l'État pour le désenclavement de cette région, nous avons vu, avec l'autoroute à péage, avec le pont de Founioun, avec le port de Founioun, ça c'est des réalisations, mais la population, les emplois qui sont nés ici. Chaque jour, non qu'ils cessent les affaires partisanes. Le problème de fatigue, en réalité, c'est ça. Les responsables qui sont là ne respecte pas la population faticoise, et particulièrement la jeunesse, qui abat toujours le travail, qui occupe toujours les devants en quatre de Nous alertons le président de la République. Nous avons aussi qu'il doit être là incessamment. J'espère qu'il est grand temps de venir à Fatigue, mais aussi de changer de format. Monsieur le Président, on vous invite à ce qu'une fois à Fatigue, que tu cesses vraiment d'être dans une salle, éviter ces responsables qui, depuis lors, ils sont là et ils n'ont rien foutu, en tout cas dans cette ville. C'est concertés, mais il faut changer de format. Aller dans les quartiers. Nous avons que 11 quartiers. Mais qu'ils invitent les, responsables des quartiers, qu'ils invitent les imams, qu'ils invitent la population lambda, mais aussi les mouvements qui travaillent, qui travaillent pour le développement de cette localité. Et c'est la vérité. Et alors ça, c'est comme on l'a dit, nous ne sommes pas une milice. Et nous sommes prêts aussi à l'accompagner. Ça, c'est sûr. Jusqu'en preuve contraire, jusqu'au dernier centime, nous allons l'accompagner. Mais en tout cas, les résultats qu'on a eu ici lors des élections législatives, ces élections récentes, là où habite le président de la République, on ne peut même pas avoir 40%. 37%. C'est lamentable. Monsieur le Président, tes fils fatigués souffrent aujourd'hui. Manque d'eau. Mais ça, s'est dépassé dans ce pays-là. Ça, s'est dépassé dans le monde entier. Il l'a tantôt dit. Pour avoir de l'eau, tu es obligé de se réveiller à 4 h du matin. Depuis quand on est là, on, a, envie de ce problème. Mais attention, la question des infrastructures. Fatigue doit changer de visage aujourd'hui. Regardez le pavage qu'il a eu à créer dans toutes les régions, dans toutes les communes du Sénégal et le fief du président de la République. Les routes qui sont complètement dégradées à l'instant. Mais ça, c'est gravissime. Monsieur le Président, mais, ah, mais ça, c'est gravissime. Et les inondations, nous sommes en phase de l'hivernage. Même pas deux mois de l'hivernage, nous avons vu ce qui se passe depuis lors. Hein. On n'a pas vu que ça soit la LONAS, la mairie de Fatigue, l'ensemble, mais ils n'ont rien fait ici. Mais ça, c'est des choses qu'on doit se préparer, qu'on doit préparer au préalable. Le marché de Fatigue mais on ne peut pas tout dire. C'est juste pour le lancer un appel, pour lui dire que, de toutes les façons, nous sommes ses fils, nous sommes ses frères. Nous avons abattu un travail derrière lui. C'est pour aussi le changement de fatigue, le développement de fatigue, mais ça commence d'abord par le capital humain. Mais si la, la population ne s'y voit pas, la jeunesse particulièrement, la question de ces emplois fictifs, qu'on crée pour, nos jeunes frères, on les amène au port, au coude, alors sans, des, contrats à durée indéterminée. Mais, mais ça, mais jusqu'à quand C'est arrogant de voir ce qui se passe ici. C'est ces mêmes responsables qui, construisent des châteaux. Mais, non, mais attends, où va ce pays Où va ce, ce Fatigue Fatigue est une petite ville par rapport à ce pays-là. Et alors, Monsieur le Président, nous avons vu ce que vous avez fait dans tout le Sénégal. En tout cas, nous vous lançons un appel solennel au nom de tout le mouvement qui regorge beaucoup de jeunes, des responsables dans toutes les localités, voire même le département de Fatigue. Nous sommes prêts et nous avons pris toutes nos dispositions à reprendre notre destin en main. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pourquoi pas même qu'il vient à Fatigue, on barre la route. On s'est prêt à se battre, monsieur. Parce qu'il est grand temps que Fatigue change. C'est les dernières tournures. Depuis 2012, combien d'élections On a élu le président ici avec la manière au sein de Fatigue. Mais jusqu'à présent, rien. Rien, du tout dans ce pays-là. Rien du tout dans ce, dans ce Fatigue-là. Il faut qu'il change et il est grand temps qu'il alerte, qu'il change l'équipe qui est là depuis lors, qui n'essaie de rien faire, qui essaie de marginaliser, qui sème la zizanie dans les rangs du parti. Qu'on arrête.

tay poste yoy bu ñëwee mu mën ko jox ñeneen ñuko neex ño xamné man mosuma leen gis ci terrain politique mosuma leen gis ci arène politique parce que li ñuy def ni politique bi ñuy def arène la lamb la mo gëna sax metti lamb lu ne lañuy daj lu ne lañuy ñuy dégg façon xeeblu bu ne ñu ngi koy poste yoy tay mun naa ne genn wàll ñi ko jox ñëpp ñu ñuy xéplu lañ ko jox ñu doon attaquer président Macky Sall lañ ko jox légui parti bi lay laaj légui ñiy attaqué président ndax ñoo gën a ay ci parti bi wala ñi nekk ci euh, ci parti bi di liggéeyal président ñoom amuñ dara ci parti bi te dara euh, waru leen a fekk ci parti bi loolu moom moo tax ñu gën a woote point de presse bii nii parce que geste yooyu noonu dafa yàgg fii mosuñ cee rebondiree nii mais lii trop c'est trop ñun ay ndaw lañ te gis nañ bu baax

xarit la sama lépp la mais dafa nekk loo xam ne def na loo xam ne ñëpp a ko ñaawlu ci fii fii ci Fatick lu toll nii mouvement Fatick moo ñor ak liggéey bi muy liggéeyal Macky Sall rafetul poste yu toll noonu tegu ci loxoom mu dem di ko jox keneen te amul sax ñaar wala ñett wala cinq sax yoo xam ne sédd na ko mouvement bi mouvement bi nekkeewu fi ci opposition daf fi nekk ànd at parti pouvoir di ko liggéeyal guddi ak bëccëg heure bu bëtu président xonqee mouvement bi dañ koy gis mu nekk ci devant yi di sacrifier seen bopp saa bu ne ay ndaw topp sama ginnaaw ay mag topp sama ginnaaw am luñ bëgg toppuñ leen pour ça parce que dañ leen di gunge nii rek ba seen affaire baax ñu ñëwaat toogaat loolu nag lañ leen na arrêté dafa war a arrêté parce que ñun ay responsable lañ ay magum jëmm lañ daa war a arrêté te dina arrêté nag ci nii wala ci nii parce que ñoom bu Macky Sall soxlaa ñun lañ yaakaar ñun xam ma ndax Macky Sall xam na ko wala xamu ko mais duñ ko ko wax parce que suñ toogeek moom chaque jour duñ ko wax li nga xam ne mooy vérité bi président Macky Sall heure bu soxlaa ñoom buñ ñëwee buñ ñëwee daw si président bu leen woowee ñoom bu ñëwee daw si ci dëkk bi ñun la ñuy woo ñun ñooy nekk ci devant yi yéen da ngeen koy gis presse yéen yéen waa presse bi du ngeen di wax nag politique leen def la mais yéen a ngi gis bu baax mouvement bi limi muy ba pare mouvement bo xam ne toll na nii di di def ay transformation produits locaux di def lepp di liggéey di def ay formation di former famille mënuñ fexé ba appuyer ñu amul ben responsable politique bu nek fi ci euh, APR nek ci Fatick bu mos a mouvement bi encourager len wala mu ji gi yëkkati benn kii boo xam sax di ne am len ma appuyer len pour ngeen am fu ngeen euh, gën a mun avancer amul la preuve mu ngi nii lii balaa ñu ko monter xeex façon xeex bu ne président Macky Sall li deux comités la balaa ñu koy monter xeex nañ façon xex bu né nëbbuñu fiche yi làq ñu ko wo mu nan la kee ko yor ak kële ko yor boddi wanté bi siisante bi ci APR ba ma juddoo ci suma ndey ak suma baay ba léegi maa ngi soog a gis parti bu siisee nii ndax siis sax boo koy def mun nga siis koo xam ne sax nekkoog moom mais ci biir parti bi jeunes yi nekk ci biir parti bi responsable yi fi nekk ñoom ñooy siis jeunes yooyu pour ñu dem génn kër gi lu la sonal sa ñi nga takkal sa ndomba tànk yi nii tey ñoom ñoo la sonal tey ñoo la ko teg parce que ku gis nen ne nenangi gi ma wax nekk nga président boo xam ne tey mun nañ ne kenn du la takkale kenn fii ci Sénégal kenn du la takkale kenn ci Afrique ndax def nga ko fi liggéey nga ko fi kon tey soo nekkee président boo xam ne tey fu ñu la tuddee ñëpp mer war ngaa xoolaat sa entourage sa entourage bi kenn xamul ban façon nit lañ nekk nañ nit yoo xam ne amuñ yéene ci nit amuñ yéene ci kenn lu dul seen bopp seen bopp lañ fi nekkal lépp lu la yàqal Sénégal rek sa entourage bi nga xam ne tey ñoom nga fi teg ñoom ñoo la koy yàqal man Modou Sy maa la koy wax di président mouvement Fatick moo ñor yàgg naa laa ñun ñooy gaynde yi nga xam ne tey ñu ngi xool bët bu ne mais heure boo soxlaa sa bët heure bu xonqee ñun ñooy taxaw ci kanam adressé nañu ci côté buñ ci nekk nag ay opposan lañ ay nangam ak nangam mais yàlla def na boobu ba léegi teguñu ci bët mais nag gis nga duma topp diw boobu daa fekk fa ngeen jëm soriwut 2009 ba léegi man président ak ñi fi toog boobu créé guma mouvement ñu ngi ànd ak yow mosuñ dem fenn ngir lan li nga dëkk ci Fatick ñun lool rek la gis donte ñu ngi nak di di la conseiller di la wax ci dëkk bi dañ lay yé dong mais leneen taxut ñoo jóg ñu lay xamal rek ne mouvement bu tollu ni at li li ne ci all bi suma la né man amul ñuma soxla yow en tant que politicien war nga ko ñak gëm mais suñu gore motax képp ku ñu woo téléphone pour xëcc ci vers ñom ñu lank xamné président de la république nga mais suñu nijaay nga suñu mag nga suñu papa nga te yow fils de Fatick nga te ñun it de Fatick na loolu lañ la toppee mais nag dañoo bëgg nga gëstuñu ñun yow mouvement Fatick moo ñu ñor parce que sonn nañ responsable yi fi nekk ñu ngi ñuy xeex comme c'est pas l'appel fu ñu tourné ñu ñuy xeex fu ñu tourné ñu ñuy xeex di ñu yow di ñu la nëbb pour lan la lu ñu mën mën nañ ko ñoom xam nañ ne ñun ci terrain bi ñun ñoo leen mën di la wax rek ne la. amna ci responsable yu bëri fi tay ñu ngi fi fatik di fëgg dënn duñu ca lenn duñu dara ñun ñi tay jeune yi nekk fatik fi tay xamne tay fo foo tourné gi gis ñu ñun ño nekk ci devant yi heure bu sa bët xonqee ñun ñoy nekk ci devant yi su résultat bi génnee ñu yaakaar ñom la duñu dara ñemee wuñ sax duggu ci kër yi élection yi passé ñemee wuñ sax duggu ci kër yi def porte à porte ñun ñi lañ jiital ñu def porte à porte yi ndax sa euh, maire at pay ñun lañ respecté euh, jigen yi ñun lañ jox kër ñun lañu mëna dégg da ngay duggu ci kër sax ñu né bu fi diw gi duggee dinañ leen dak ñun lañuy deglu kon tay légui affaire bi lan la golo di béy babu di dunde loolu moo fiy jeex lolu mo fiy jeex weddi gis bokku ci ñaari comité bi ñu xeexee lii ci deux jours la ko mouvement bi samp deux jours lañ ñu ko jox ñu samp ka am problème commissaire bu ñu monteel ñu ñuy xagn commissaire yi ba man ma mujul lijeenti numéro téléphone commissaire Adama Diallo xaw ma Awa Diallo moko muju ñew sampal ñuko fi bimu bi da ñëwee daa fekk kër gi fess del ñun fi xamnañ xamnañ bu baax ku ci nek ku ci mën sa bi ñu amna ci fi ñu bari ay responsable lañ danga leen takkaloon dooma tank seen benn comité sax dañ ko takalé ñun ñu ñew fi gérer ñaari comité li nak li amna na lu muy wone lii newut ne c'est parce que nous nañ tak ci yow de wala à vie lu ngeen ñu mëna def rek ñun say nit ñi Nous sommes ñun ñeneen nit ñi nit ñi mouvement bi la te déggal nañ ma te seeni déggal na président de la république du menace du len li seeni numéro téléphone suñuy suñuy nous, la wa membre mouvement bi la ñoo nek fi deux comités yi ñu Montel. suñu nous ñun satisfaire dem ci ñi nga xamné parce que ñi ñuy wo bari nañ du menace parce que am ngeen habitude nit bu un vrai politicien vrai politicien man li gis moy da qui di dem vers ñi nga xamné ne sax pas ne ne contre mais APR ñepp pas ci ñom ñi gëna décourager ci APR sax par ñi nga xamné ne ay jeunes lañ les ay maire lañ ay pas yo xamné ne ñu ngi ci APR gisul gisuñ ci seen bop non seulement ñi nga yaakar so leen di wo duñ jël téléphone tent seen auto, suñuy dugg ci dëkk bi recruter jeunes yi jox leen ay kaki jox leen ay matraque tourner bu bu dimanche jotee ñu retourné waat dem dakaar fay seen téléphone nii lañ fi nekkee ñun nag duñ waxal kenn loo xam ne defu ko amuñ fi njëriñ benn njëriñ amu ko fi amuñ ko fi lu dul di la yàqal am na ci ñu bari ñoo xam ne fii bi élection di jubsee dañuy daw kër yi parce que ñeme ñoo dugg ci kër guñ dugg ñu génne leen ay responsable lañ fii te boo ko gëstoo dinga ko xam ñun nag nëbuñ la dara dañuy dem nag ci li nga xam ne tey moo nekk ci dëkk bi te yàgg nañ koo wax gis nañ ci saafara nag dañ lay gërëm di la sant parce que am la moo gën ñàkk la mooy am na ay manquement yoo xam ne fi may commencé président mooy problème mu forage bi Fatik yëpp ngi jooy quatre heures du matin trois heures du matin moom la waa Fatik commencé di jóg di root soo ko soo ko deful doo am ndox loolu feebar la boo xam ne mu ngi commencé di dal Fatik te gis nañ ne war nga ñu ko mun a saafaraal ndax gis nañ li ngay def ci yeneen dëkk ci ay forage beneen bi gis nañ tali yi ngay def ci yeneen dëkk président Macky Sall ñun mouvement ñu ngi ñun mouvement Fatick moo ñoon ñu ngi lay lancé waat appel di la wax rek ne ñu ngi ñu ngi waxaat ne nga jàppale ñu ci tali yi nga xam ne ñu ngi ci sa dëkk bi nga xam ne tey fi nga fekk baax gis nañ fi ay yenn entreprise yu ndaw yuy def ay coupure ay un mètre cinquante dagg tali bi ci tali yoo xam ne mun nañ koo bañ a tee ku couper dañ ko war a raser defar ko comme yeneen tali yi ngay def ci yeneen dëkk gis nañ daaw problème mu inondation bi nga xam ne am na ci dëkk bi ba loolu Sénégal yëpp jot ci am yenn kër yu bëri yu ñu déménager woon déplacé leen ñuy dem coono googu At yàqute googu tay amoon fi ci commune fatik gis nañ na nawet baangi ngi wat, si te gisun ci ben safara depuis bi nawet bi passé daw ba legui buñu defora machine bu gas wala canalisation buñu gas kon lolu ñun mouvement fatik mo ñu ñor tit nañ ci parce que deux mois rek mo dess ci nawet bi président ñu ngi lay yee dila fatali wat ne inondation bu mag mo amone fatik daw ba yenn kër yu bari plus de 100 et quelques kër ñu déplacer l'en. te deux te déplacement bi chaque jour dafa metti jàppaleel askanu Fatick jàppaleel ñi nga xam ne tey ñoom nga war a jàppale ndax béy ci sa wewu tànk président Macky Sall responsable yi fi nekk waxaatal ak ñoom am na fi ay jeunes yoo xam ne tey ñu compétent lañ soo leen appuyer jàppale leen bëgg nañ Fatick te dinañ jàppale Fatick jàppale leen may leen loxo bul mere ñee rek mere waale ñëpp ñi am ci yow cofeel ñu ngi fi jeunes yi nga xam ne tey ñu ngi dem vers opposition bi ay jeunes lañ yoo xam ne say rakk lañ say nit lañ tey dañ laa yàgg a bëgg wolof Njaay da nit ki nga xam ne tey da laa yàgg bëgg mere la moo moo gën a neex a jëli ne nit ki nga xam ne tey daf laa mere te nekkutoon sa nit fii képp ku la fi mere tey ba tax mu dem ci yeneen nit rek sa nit la woon kooku jëli ko yomb na te li leen tax a mer du yow de mais say responsable yi nga xam te ñoom nga takkal ndooma tànk ñu nekk fi di def lu leen neex arrogant ñooñu noonu ñooñu lañ mere te loolu dafa jot nga jóg ci parce que téye la maire li nga def ci réew mi amul kenn ku ko def nangu nañ ko mais am nga euh, groupe boo xam ne groupe bu leen gën a bon ci àdduna amul. amul iñaan nañ bon nañ soxor nañ soxor nañ ci seen i rak soxla soxor nañ ci Fatick te dinañ ko layoo nag dinañ ko layoo bu baax bu baax a baax parce que li nga xam ne moom lañ leen takkal muy ndooma tànk bi takkaluñ leen ko pour ñoom kese dañ leen ko takkal pour askanu Fatick te gis nañ seen nawle yeneen yi yi ñu takkal ndooma tànk ci yeneen dëkk demal Fuuta Farba Ngom lam fa def demal Caajaay euh, demal euh, gosas Kaffrine ah mais ay ñoo xam ne ñu ngi Fatick di xeex nit ñi ah suñ la gisee di mel ni seen xar kanam yi day saxaar bëgguñ nga am bëgguñ kenn ku tekki ah président Macky Sall buy ñëw ñun nasaxal nit ñi jeunes yi war a mobiliser ñu leen koy nëbb di bàyyi ba deux jours des ñuy soog a wax naan président day ñëw pour lan la. yow président buy ñëw ci dëkk bi ñëpp ko war a yëg ku ci nekk boo amee say nit nga mobiliser ñëw ndax président mu a ko xam ne dëkk bi am nañ cofeel ci moom mais dañuy pousse nit ñi pour ñu dem vers opposant ñun nag dañ lay waxal ñun mouvement Fatick moo ñu ñor duñ ay nit ñoo xam ne dañ lay baaba ba pare ñu dem jëliwaat leen de duñu saar boobu ñu lay xamal rek ne wax nañ guddi wax nañ bëccëg wax nañ fu ne ngir am cofeel ci parti bi suñ sañoon parti bii ñu commencé ci la ñuy nekk ba dee ci mais nag amuñu ci dara benn teraanga amuñu ko ci tey mu yow mot si bu toogee di wax nii sax su ko ni ñi dégloo sax affaire bi dinañ xam ne li ma wax nii wax lii dëgg la vraiment mot si daa war a wax parce que mot si yàgg na ci parti bi mot si mook parti bi ñoo juddoondoo mais su ma la nee président awma dara ci parti bi dalay sax jaxal parce que man du ma la mere mais ñi nga xam ne ñoom fi teg ñoom ñoo ma waroon gësu gëstu ñi nga xam ne tey ñoo ma yaakaar muy mouvement Fatick moo ñu ñor bii tey wër ma su ma lay jàppale di ànd ak yow guddeeg bëccëg ñii ñoo ma dooleel te ñii ay responsable lañ te bés bu ñu leen di bàyyi yéen ñii ñëpp ak ñi ngeen xamul ak ñeneen ñi nekk ci àll bi ñëpp ay ànd ak man baleen dem ci ñeneen loolu laa amoon loo xam ne tey dama koy wax muy euh, alerte boo xam ne dañ koy def ngir am cofeel ci yow defuñu ko pour menace mais dañ koy def pour ngir am cofeel ci yow suñu neexoon def déclaration bi def suñu démission mais day tel arbitre sax bu bola bu la bëggé jox carton rouge carton jaune la lay njëkk a jox li nag carton jaune la bo xamné mouvement fatik mo ñu ñor moo koy yëkkati jox la ko carton rouge bi nak d'ici quelque temps so réagirut ñun dinañ ko génne té suñ ko génnee dinañ dem jakarlo gi yeen bu boba nak bu len wax dara wasal. éducation sur Sine TV santé sur Sine TV l'actualité sur Sine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV.